asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ci ñu bokk ak valeur yi ñu bokk ñu bëggoon ngeen xool euh, vidéo bii ñu leen di won ba noppi ñu ñëw ci faram fànce gi. Euh, dafa doon ko xamante ni daam lu mu bëgg a wax sëñ Babacar taalibi sëriñ Touba mm-hmm. dinaa ngeen lan sëñ Babacar. Euh, papa man li ma bëgg a wax lenn la. Mm-hmm. ndax ku dul sëriñ Saliou Mbacke. Mm-hmm. yaakaaruma la. sëñ Saliou rek laa bëgg. dëgg la. ba may xale ba tey sëñ Saliou rek laa bëgg ndax moom laa xam musuma waatee benn sëriñ musuma ñaan benn sëriñ ku dul sëñ Saliou waaye démb damaa tëdd ci sama néeg bi tëdd ci sama kawlal ba ma tëddee ci sama kawlal ay 3 heures 4 heures du matin may seetaan TikTok di seetaan TikTok ba ci yàgg euh, ma gis photo sëñ Babacar si ba ma gisee photo sëñ Babacar si ma ne ko sëñ Babacar si mu ne ma ma ma sëñ Babacar si man de musuma laa ñaan si Malick sëñ Babacar si musuma jàkkaaru photo kenn ku du photo sëñ Saliou ñaan waaye tey de si man maa ngi lay ñaan ndax bañ ma takkee ba tey musuma ëmb ëmb ba léegi te bëgg nga may ma doom góor si Malick tuddee ko sëñ Saliou ñaan ñaan loolu ci sëñ Babacar si ba pare te ci sama biir bi ma tëdd di nelaw ma gént ñu indil ma ñaari ñaari ñaari ñaari test ñu indil ma test. dëgg bañ ma indilee test. Uh-huh. ba ma tëddee di nelaw ma gént ñu indil ma test bi te ñaan naa seen Babacar si ba mu arrêté musuma ko ñaan ma tëdd di nelaw ñu indil ma test grossesse. Uh-huh. bañ ma indilee test grossesse may def test bi ci gént gi. Uh-huh. ba may def test bi. ba may def test bi ci gént gi. Euh, mu génne ma ñaari tere rouge ñu xamal ma ne ma dangaa ëmb. bañ ma xamalee ne dangaa ëmb ma naan waa man damaa ëmb rek ma gis sa photo sëñ Babacar si bi taxaw ci kanamu test bi di signaler di def nii may gis may gis jëmmu sëñ Babacar si. tey si Malick. sëñ Babacar ma gis jëmmi sëñ si bi mu xamal ma ne ma li ma ñaanoon may naa la ko. ay Bakary Darathmane ay Serigne Babacar est ba ma woowee sëriñ bi wax ko sëriñ bi da doon jooy mu ne ma sëriñ Babacar si dalaa firndeel na la may na la yow li nga ko ñaanoon waaye doom bu góor nga ko doom bu góor nga ko doom bu góor nga ko ñaan ñaari tere yooyu may na la ko benn bi sëñ Saliou la benn bi bu ñëwee sëñ Babacar si moom. sëriñ door ay seex sax. kenn du xale bi dëkk seen kër nga agsi mu jox la photo ma jógee koo sama kër sama kër sama kër jëkkër na tëll ñëw sama kër yaay toog. xale bi jugee koo ci néegi yaayam génn foto sëñ Babacar Sy bi ne ma am man maa la ko may. Mhm. ne ma am man maa la may photo sëñ Babacar. xale bi ñoo jox la photo sëñ Babacar moo la wuyu si. ñëw jox ma photo sëñ Babacar si bi ne ma man maa la ko may. moo la wuyu si sëñ Babacar ba kër yi man. arab la Kumba Thiam. Euh, man nag sëñ Saliou rek laa gëm. Ah. moom rek laa bëgg. waaye bés nga ci tey jëlaat naa sama jëm ak sama xol gannaaw yàlla ak yonent bi Serigne Saliou dénkaat kenn du moom si Malick moo la defaral loolu. ay sëriñ Babacar. ay Bakary Dara man arab la maam Kumba Thiam sëriñ Babacar si. damaa dëgg la dëgg la. kenn du moom si Malick. kenn du moom. jërëjëf sëñ Babacar sëñ Babacar la fay loolu. ànd bépp na ko dégg. Mhm. dafa demoon ñaan ëmb mu ñaan ko sëñ Babacar sëñ Babacar indi ko ko. kon kenn du si Malick. kon mi ngi noonu mbokk yi. vidéo boobu ngeen seetaan. jenn jigéen di ci wax jàkkaarloo góor gu koy laaj kaa yu mel nii day bari na ci réew mi lool lool lool ba jéggi dayoo ngeen gis kon ay nit ñu sànku te bëgg leen gindi gis ay nit ñu réer nit ñu ñàkk xam-xam bëgg leen jàngal yee leen kon moos mel na ni képp kuy boroom xam-xam ci réew mi képp kuy jàngalekat ci réew mi képp kuy waaraatekat ci réew mi képp kuy yeetekat ci réew mi képp ku diine lislaam ñor ci réew mi lii boo ci waxul jàppal ne leneen loo waxati du safe lii war nañoo fexe ba mu deñ ba set wecc ci réew mi wala bu dañul it dellu ginnaaw lool te it nag yi du benn du ñaar kii ngeen seen ku yërëmtalu la wala boog ñaar ñooñu ñu yërëmtalu la ak ñoom ñeneen ñi na ñoom ndax nag ñi ngi ci lëndëm gu tar te mel na fi mu ne nii ay làmpa di niital jàpp nañ ne ñoom li ñuy wax moo jara wax moo jara gëm moo jara jàpp lii lañuy dund fi mu ne boo leen ca fekkoon soo leen weddee sax boo moytul ñu xeex ak yow nga xam ni seytaane ma meet na leen ba jël buum noos ci seen ñaari bakkan yooyu ak bakkan yu mel na ñoom di ñod di jëme ca mbooy ga mbokk yi ñii képp koo xam ni kii rek am nga yërmande néew na bari na ay mbokkam seeni mbokk ñoom ñaar ñi war nañ leen a woo wax ak ñoom seeni sëriñ ya ñoo xam ne nag ñoom la yaakaar nee na ñooy wala ña bokk ca ñooña war nañ leen a woo gindi leen ndax responsabilité bi ci kanam suñu borom ëllëg dana tiis lool sëñ Babacar mi muy wax man miinuma ko bu baax xëy na samay at a tax sëñ Saaliwu moom jaxasoo ma ak moom itam waaye vidéo bii nga xam ni moom laa leen di bëgg woon yaakaar naa ne dana doy sëkk ci ngeen xam kan mooy sëriñ Saliou ci genn wet li wérte wóor daal mooy lii moom jàpp naa ne bërki démb coow li ngeen fi dégg mu ñu àgg ba naan dañuy tëji jàkka jàkkay benn mbokk moo xam ni mii bari na ku ko xam ci jub ak ci ngor ak ci njekk man de ci ñaa bokk ndax man jokkoo na ak moom ba tàyyi ci wax donte suñu jàkkaarloo mësul am jàkka ja moomu ko waxal na ko boppam waaye yaakaar naa ne jàkka bu ñu demoon ba nga xam ni gis nañ fa lu jaaduwul sax dind lu jaaduwul la moo gën a yenu maanaa tëj ko su fekkee ne du ab béjoo bu ko defee nag lii moom kuy xeex fii ngay xeexe waaye yaakaar naa ne doo xeex ci ay jàkka ñu moytu nag nag ndax mbir mi kat su fekkoon ne dafa am fulla ak fayda ndax sëriñ Cheikh Gueye mu baax mi atallallahu baqaaw mi ngi may wax ni mbir mi du ca tëj jàkka kenn tëju fa jàkka kon ñi nga xam ne ñoom ñoo tasaare wesaare ne dañoo tëj jàkka nañu ragal yàlla nañu seet seen digganteeg seen tëraayu bàmmeel danañu dee danañu dekki te bala ñoo de génn fii addi alaxira dem alaxira danañu gis payu seen jëf yu ñaaw yooyu ñuy wesaaree ay wax yoo xam ne yii du dëgg su ko defee bokk yi ñu woon leen vidéo boobu ñu leen di wax ci Serigne Saliou yaakaar naa ne dana doy tegtal ci képp koo xam ne kii xam nga bëgg nga xam ne mbokk mii di suñu mbokk mu jigéen mii ak ki koy laaj ci lëndam la ñu nekk nekkuñu cig leer wala iyaasu billah yal na leen yàlla gindi te gindi képp ku nekk ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñun ñoo ngi koy fàttali ndigal suñu borom si diggante jaamu yàlla bu nekk ak morom ma ku may defal sa borom sant ci sa digal sa morom ñu fàttali ko it fàttali li mu mën di ko defal ci teet tere yi teet teet di teet tere yi. bokk nañu nga xam ne maa ngi koy fàttali itam jaxasoo bu bari bi diggante góor ñi jigéen ñi siyaare kaay yëpp war nañu jigéen ñi war nañu berante góor ñi ñu ko fàttali fàttali jaamu yàlla yow ñu war ci ñu juróom ak weeru koor ak ak saraxa yëpp ñoo ngi koy fàttali waaye du lislaam ji yëpp xam nañ ko xanaa di ca rek waaye ku ne xam na ko maa ngi sama sama borom maa yàlla sama borom te di ko jégalu. ku bëri ko te laaj ko ci xéwal